العبادة والخدمة دي جامو يالا اك ليغيال الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين مصطفى لا جي كون فنا مانا جيروم نيت جيم كو تونت رك تنك بو بي موي داي واخ نخ جامونو جي نتولو نيغا koor gi dess na lu mat ay bis gën ga gatt wala bok jurom jurom waaw ay bis gën kaa oh, ñatu jurom benn fan gën ga gatt ndax dess na génne asaka eh, murum koor legi ni lol tontu li moy li ñu gën a jàpp ci murum koor mom moy bu wéru ci la waxtom di di di tambali waxtu ngi génne waye nak borom xam-xam yi ci ngeer mi ak ci yenen ngeer maye ñu jiital ko ñaari benn fan wala ñaari fan maanaam buñ ne suba lañu séntu weer wi loolu ak yombal la waaye ca dëgg-dëgg moom bu weer wi feeñee la la tàmbalee am na yeneen ngër nag moom ñoo xam ne mën nañ ko may nañ ñu génne ko lu jiitu loolu lépp loolu mooy bu dee dañ koy génne jox ko ki koy ki koy ki koy ki bu fekkoon nag dañ koy génne jox ko jox ko ab kuréel am na béréb yoo xam ne ay kuréel ñooy dajale muuri koor Euh, bu fekkoon da nga koy génn jox kuréel bi nag man moom bu weeru duggee rek bu neex génn ko jox kuréel bi waaye day fekk ne kuréel bi ñoom balañ koo jox ña ko yaayoo moom dañu dem ba sës mooy bañ ne benn fan wala benn fan wala fan moo ci des door ko tàmbalee joxe ña ko yaayoo waaye teele ko lool moom ndax boobaa la taxoon ñu koy joxe man nag caa bañ a jëm ndax dañoo bëgg mu jëm ci bis bi te kuñ ko teel jox lool lool lool mën na koo jëme ci feneen. moo tax kon bàyyi bañ ne ba mu des benn fan wala ñaari fan daal walla sax weer feeñ ba noppi bala ñoo julli ji nag moo gën bu doon nag da koy jox koo xam ne moom dala koy téye ba mu jege mu doon la ko joxeel kon ma ngi ko joxe léegi moom laaj bi di topp itam mooy day laaj ndax muurum koor mënees naa génne mënees naa génne mënees na ko xayma ci xaalis bu dee ci ngër mi itam dañ naan duñ ko xayma dañuy joxe dañ koy jox jëm yi jëm yi lañ koy génne muy ceeb bi wala dugub bi wala leneen ñoom loolu la ñuy wax ne duñ ko xayma duñ koy génne euh, ci dund bi waaye foog naa ku seet itam nag jublu gi jublu gi lañ ci jublu te yonent bi wax ko wax ne bokk na ci jublu gi euh, ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw bis boobu ñu am ci lu leen doy ba duñ wër di laaj loolu bokk na ci jublu gi tax ñu waral ñu ñu farataal murum koor buñ xoolee jublu googu nag moom ci soon jamono ji mënees naa wax ne def ko xaalis sax man naa gën ndax ki nga xam ne moo ko yeyoo bu ko ñëpp joxoon ceeb bis boobu soxlawu ci ceeb rek te boobaa kon ceeb biñ ko jox rek lay jaay di ko di ko leneen te kon day day day wàññi ko jox xaalis nag lu mu ci bëgg mën ko caa def moom bu bëggee ceeb man ko cee jënd bu ci bëggee dara man ko cee jënd moo tax def mel ni joxe ko xaalis daal foog naa ne moo gën a dëppoo ak jublu ga ca nekkoon te yonent bi tuddoon ko ci ki doon nettali boobu muy muy foog na Ibnu Abbas mi doon nettali wax na yonent bi yooyu bokk na ci li taxoon mu farataal ko leneen lu ci aju ci muurum koor it mooy wax ji ñu naan eh, koor dañ koy dañ koy aj ba lañ ko jàllale di ko nangu nit ki dee génn muurum koor euh, muy laaj ndax wax wax jooju xadis la wala déet bu dee xadis itam ndax wér na wala déet waaw xadis la ndax xadis mooy rek lu ñuy askanale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la mooy ay wax wax ne ci yonente bi la waaye nag ñiy gëstu loolu di ko segg saxaluñ ko wéraluñ ko daan kon mooy xadis la waaye du xadis bu wér kon du lu ñu sukkandiku daal muurum koor digle nañ ko waaye nag taxul ñu wékk ci nangu kooru nit ki wala ñàkk ca nangu ñett yooyu ñoom ñu ngi jëm ci muurum koor kon mën nañoo yemale dog foofu ci des ñu mottale ko ci li ci topp laaj bi ci topp day wax ne ki amel nit àq bëgg koo baalu ndax da ko ko war a waxal ju leer da ko sàngam la wala bu ne ko baal ma ak mu ne ko baal naa la rek dana doy rawatina bu dee lool day ragal ne bu ko waxoon mën naa jur leneen waaw bu bu ko waxoon mën naa jur leneen moom ragal na mu jur leneen moom jurul mu koy wax jurul mu koy bu xamee nag bu ko waxee di jur lenn moo gën ndax gën a dëggu bu loolu baal ma àq baal naa la àq mën naa doon jur maslaa rek moo xam ne day mujj mu doon ay baat yu ñuy wax rek sax duñ ko jublu dëgg-dëgg daanaka euh, kon bu dee wax gi séentu ci mu yàq dara wax kooko mooy gën bu too mu yàq nag lu lu lu lu gën a rëy mu bañ ko ko wax te lëm ko noonu rek ne ko baal ma àq rek waaw euh, laaj bi ci topp mooy ci day wax na ci tefes yi ci ndakaaru ak xëy na dëkk yu mel ne moom jigéen ñaak góor ña dañ fay daje. di naan dañuy dañuy tàggat seen yaram te jigéen ñi di soleen ñu góor ñi sole ñuy jaxasoo itam lan mooy atem atem moom <laughs> euh, dama xamul ni góor ñi sole ni jigéen ñi sole waaye dal jigéen a góor ku ci ne moom sant nañ ko ak col col giñ ko santit it mooy col goo xam ne dana muur awraam dana ko muur du du dañ mooy du xat ba yem ci yaram kembe dana ko muurit bam bam mat te te du xat te du yaraax itam moo xam góor la moo xam jigéen la kon col gu mel noonu moom bu ko jigéen solee col gu baax la bu ko góor solee col gu baax la bu fekkee nag melut noonu rek du col gu baax moo xam day col guñ xamee góor jigéen di ko sol wala sax col guñ xamee jigéen la waaye melut noonu ba tey baaxul loolu moom daanaka moo xam foofu la moo xam feneen la euh, bu dee ñu daje fen di def sport it bu fekkee dañuy tàggat seen yaram jaxasoo gi xëy na mooy bokk na ci béréb ba rek bu dee na ci béréb ba rek moom te ku ne sol lu lu lu jaadu ci moom boobaa dara néew ci boobaa dara néew waaye ku ci sol lu jaadut ci moom nag moo xam ci lii la moo xam ci leneen la baaxut laaj bi ci topp mooy kii ne dafa am mbokk moom léeg-léeg. buy julli daal léeg-léeg mu mu mu mu mu wàcc ay loxoom léeg-léeg mu mu mu banque ay loxoom li ñu tuddee xabdu ak sadd la léeg-léeg muy def nii léeg muy def nii lu mooy atam dara new ci <laughs> ndax yaar yëpp e, lu ci ne e, lenn du du du ci yàqu julli ñàkk cee def lenn tam du ci yàqu julli kon mooy ku neex muy def lii léeg-léeg ku neexee muy def ne léeg-léeg rawatina lim ci junjaale ne dafa mel na xëy na day na ci béréb boobu ñu fu ëpp dañuy def dañuy def lenn ci ñaar yi loolu sax nag am nañu ko santaane am nañu santaane yu mel ni nga xam ne àggut ci doon farata te wuute caag ña nga nekkal mën naa yàq seen diggante bu demee noonu ànd caag ñoom donte sax bokkut ak li nga jàpp yow ànd caag ñoom mooy gën te boo jàppee dañu war a bàyyi loxo sax mu wàcc waaye nag nekk nga ci béréb boo xam ne ni fa ëpp moom dañuy wala ñëpp sax dañuy dañuy yëkkat seen dañuy dañuy banque seeni loxo te boo ko defut mën naa yàq seen diggante wala mu am aw dig bu def seen diggante boobaa nga def nañuy def kon nga xam ne danaan banque loxoom it dem ci béréb boobu ña fa ëpp wala ñëpp dañuy bàyyi seen loxo mu wàcc dañuy yor seeni loxo te bu wuuteeg ñoom mën naa yàq seen diggante mbaa mu andiwu dig seen diggante boobaa dañ koy sant mu bàyyi lam daan def te fekk si leen ndax luy boole jullit ñi moo gën a doon farata di may ci loo xam ne aku ci farat eh, ah ñu ngi dog de xanaa kon ma <laughs> kon ñaari laaj moo ci des benn bi naan ilimaan joo xam ne da doon julli suba fàttee xunoot fi ñu ko baaxoo defee ba rukon ba siggi daal di taxawaat xunootaat rukon door àggale julleem yu noppi su jootut defut dara ñenn ñu toppoon ci ginnaaw am na tamit dañoo julliwaat ñoom mu mooy àtte bi moom mooy euh, recours bi mu defaat la ñuy xool foofu manees naa jàpp ne da ko defaat ngir njuumte ngir njuumte ndax daa jàpp ne daa jàpp ne noonu la ñu war a la war a defaree julli gi daal kon recours bi jubluwut a dog yokk ab recours waaye njuumtee tax mu def ko kon dañ koy jàppe ku yokk ci njuumte rek kon moom daa waroon bu sëlmale rek su jóot ñu ànd ak moom it buñ su jóot moom it boo xam ne ginnaaw sëlmal la nag te ñuy wax ne lu mu yàgg yàgg yàgg moom ku ko ku ko da koy def rek kon ñoom ñi nga xam ne euh, moom defu ko woon saa buñ ko ko xamatee da ko daal def rek lu mu yàgg yàgg bu dee ko àndoon ak moom te defu ko koy def lu mu yàgg yàgg. Euh, kon foofu lay loolu la ci xool rek mooy dafa mel dafa yokk dafa yokk muy beneen rukkoo bi mu yokkaat siggi siggi gim siggi rukkoo amaat loolu ak yokk la yokk googu nag euh, jubluwu ko dëgg-dëgg ci njuumte la ko defee kon nañ koy jàpp yokk bu mu tey rek boobaa nag bu sëlmale lay sujjóot sujjóotu sëlmal nag sëlmal bu nag toore sujjóot nag ko bàyyi lu mu yàgg-yàgg ko fàttali ko da koy def rek laaj bi ci mujj moo kii day laaj tënk yi ñu tënk ci leerul xadr te yenn yi doon ay bayit yooyu dañ ne suñ bee ko def yenn yi di lakkasun joob ñu miin lakkasun ji moom la ca nekk rek moo ne ci bayit yi itam ay tënk yuñ tënk la noonu ñu ko xamee rek loolu nag lu yàgg la loo xam ne bee ko fee fekk sëñ bi nag ay jamono bi mu tollee ci rawat na ci jàng ak di doora noppi ci njàng te doonoon ku yéen nit ñi lu baax rek lu mu gis te nit ñi aajowoo ko leen koy jàppandalal moo mu daan gis lu mu gis te nit ñi di ko jëfandikoo mu mu def koy way ngir mu gën a jàppandi ci ñoom kon lii foofu lay dugg waaye bu tollee ci jamono gis dara nit ñi di ko jëfandikoo mu jàppandalal leen ko du caagin loola mooy lim jàppal boppam di ko doxe waaye lim doon doxe moom fooguma ne tënku na ci ci tënk yi nii ndax ñi nga xam ne ñoom nekkoon na ak moom te doon ay waroomi xam-xam ñoom yeneen yeneen bis lañ jàpp te ñooñu bu doon bokkut ak bu wute woon ak la sëñ bi jàpp foog naa duñ ko def ku mel ne suñ mbàkk bu soog sëñ moom a jaara ñoom ñaar fukki ñaar fukki guddeeg juróom-ñaar ña koy dàkk ca ñoom ci lañ koy dàkke dont li yonte bi digle moom mooy ñu koy dàkk ci fukki guddi yu mujj yi li gën a dëgër nag te saxaaba yi gën ca jeng jëm moo ñaar fukkeel ak juróom-ñaar euh, ñu koy dàkk ci mbusoobe yi te jële ko ci borom xam-xam ya ko ya nekkoon ak moom ak ci waa kër Maamoor Jaara yi ci ñaar fukkeelu guddi ak juróom-ñaar lañ koy dàkke moo tax duñ mën a jàpp ne tënk yi moom euh, sëñ bi dëgg la ay jamono ba mu ba mu ci di jàpp xam-xam rek booba wayoon na ko nii waaye nag lu tax ñu jàpp ci ne moom moom la daan def wala ci moom moom xëy na ginnaaw day dundal weer bi moom duñ mën a ràññee bés bu ci gën guddi gum ci gën a fonk waaye ñi nekkoon ak moom nag te doon ko waroon xam-xam ñoom lu ñuy def dañu mën a jàpp ne rek lu dëppoo ak. ak ak li nga xamante moom lay doon jërë ngeen jëf